asalaamaaleykum waaw léegi nag xam naa tàccu yi neex na yooxu yi neex na mais bëgg naa ngeen déglu ko une minute li may njëkk a wax mooy yàlla mooy yaakaafi yàlla subhaanahu wa taala moo tuddee boppam alkaafi xam nga alkaafi lan la ci firi mooy yow mii musalaate xam nga alkaati yi ñaata lay peese ba mu adadee cent onze ñetti cent onze mooy trois cent trente trois millions yi ne dajalee pour di kon li ma bëgg ngeen xam ko lii ngeen def nit mënu ko Ousmane Sonko mii mënut lii man lii mënuma ko lii procès yàlla la ko yore kon amul tiit amul ragal ñaareelu mbir mi ma bëgg ngeen xam ko mooy Benno Bokk Yaakaar. ne seen président bii war na bokk ne ko par force da ngay dem waa ñun nag comme que ñi dénk réew mi ñoo mën a dajaloo ci ginnaaw benn nit ne ko par force di nga dem ñun seen Sénégal ñoo ne Ousmane Sonko par force. lu ñuy maye lu ñuy jël di ko may Ousmane Sonko kon xalaatu leen ñu jël noonuee di ko may Sonko loolu moom yéen ñëpp xam ngeen mais léegi dossier bi yóbbu nañ ko chambre criminelle lii ma leen di wax nag damaa bëgg yéen ñëpp ngeen dégg chambre criminelle benn dossier monsieur euh, prieur seen yoon nekku ci kon nañ respecté procédure bi nga xam ne moom la chambre criminelle masa doxe saa buñ jàppee ab atte ci at mii muy 2023 bii suñ ko ci atte rek na xam ne bëgg a empêcher Ousmane Sonko mu nekk candidat moo tax a jóg